société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo am sonko jeeg indi sonko ji ba tey mi ngi wéy réew mi quotidien nanu li ko waral mooy DGE gannaaw ba mu ko lànkee jox fiche de parrainage yi Sénat daa dugg ci yëf yi ne direction générale des élections li nga def du dëgg du yoon Ousmane Sonko jox ko nu gën a gaawee fiche de parrainage yi ngir mu mën a wuti ay parrain mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 waaye DGE lànk ba tëdd ca naaj wala def tax réew mi quotidien ne coow laa ngay wéy waaye bi yoon coow li ca kaw la ne ci biir yéenekaay bi Alioune Tine di artu naan wii coow bu nu ko fayu daanu mbëkk miir bi Valdiodio Ndiaye di expert électoral ne mën nañ faa bañ a yegg ndax Sénat mën naa wuutu DG ci mbir mi Assane Samb dëggal ko ne Sénat mën naa sauver Ousmane Sonko ba mu am fiche de parrainage mën a wuti parrain bokk ci élection présidentielle bu 2024 le témoin ne waaye DG ya ma ngay def résistance doonte Sénat wàññi ko ci li mu lànk de parrainage yi Ousmane ak Njaga Silla ñoom ñépp ñu dal ci kaw DGE DGE mi janoog Sénat lank def la mu ko sant ci mbiram Ousmane Sonko buñ sukkandikoo ci Sud Quotidien ci biléb yéene kaay itam ñu fekkati fa val jooju njaay di expert électoral mu ne Sénat mën naa wuutu DGE ci mbir mi Njaga Silla moom di ñaawlu ni suñu administration di doxalee te du dëgg di yoon mu bëgg koo wekk ci ab dogal buy bàyyeekoo ci Cour suprême Alioune Tine lii lépp nag jubluwun ci lenn lu dul xañ Ousmane Sonko mu bokk ci élection bi ñu dëgmal yor yor bi ne loolaa tax fi mu ni sax ca la mu ne te du yoon Sénat cantaane gi ñeel mu jox Ousmane Sonko fiche de parrainage laas dëggal ni DGE dafa lànk topp li ko Sénat wax tax bis bi ne pëccixoo am na ci yëf yi ndax Sénat ma ngay yedd DGE ci doxalinam waaye moom direction générale des élections fasuta yéene teg gi tànkam fa ko teg tax Alioune Tine ci lu mel ni xeme Thiendella Fall directeur général des élections moom Thiendella ci enquête muy leeral ne direction général des élections ga mu jiite amul benn sañ-sañ def lenn ci fichier électoral bi yéene kaay bi di fàttali ne buñ sukkandikoo ci code électoral Sénat mën naa wuutu DGE jébbal Ousmane Sonko ay fiche de parrainage waaye enquête ne radiation Ousmane Sonko di seppi gënu ko seppi ci liste électorale yi xeex bi jeexagut ma ngay wéy coow loola jur weneen coow diggante experts électoraux yeeg juriste yi buñ sukkandikoo ci l'observateur les échos moom di ñu yeggee coow li am keroog diggante Juan Branco ak juge cour de justice bu CEDEAO ba ñuy àtte mbiram Ousmane Sonko yéene kaay bi ne jokkalante nañ fay kàddu Ousmane Sonko ya bawoo bitim réew bokk ci àtte bi àtte booba Vox Populi nee na juróom benn fan weeru novembre la ko cour de justice bu CEDEAO di joxe waaye keroog yëf ya tàngoon na jër Juan Branco juge ba jokkalante nañ fay kàddu yu ñagas yéene kaay bi it ñëw ci avocat yi état nin taxawee woon bëgg a seppi avocat yi Ousmane Sonko yi jóge bitim réew réew mi di Sénégal nag yéene kaay bi nee na fukki million ak juróom-ñetti doomi aadama yu teg fanweeri junneeg ñaar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett lañu fi wàññi ci juróomeelu recensement réew mi quotidien it faram fàcce yooyele xayma niki les échos mi ñuy xamal ne góor ñee gën a bari jigéen ñi bun sukkandikoo ci boobaleb recensement le quotidien dëggal ko ne góor ñee gën a bari ci réew mi mbàkke it yéene kaay bi nee na nit ñi gën a baree bi ne waaye ñi gën a bari ci réew mi mooy ñi am diggante fukki at ak juróom-ñeent ak fanweeri at ak juróom tax yéene kaay bi ne Sénégal gi réewum ndaw ñi la waaye ñi ñu limaalewut ca boobaleb recensement ña ngay ñaxtu ci vox populi indi coow ci yëf yi waaye directeur des statistiques démographiques sociale di dalal seen xel ne képp ku nu wàññi wulit daanu la boole ci askan wi limaale la papito kara ñu limaale ko ci doomi sénégal yi faatu ci yoonu espagne gi libération ak yeneen yéenekaay yeggeeñu ko journal bi fàttali ne xale bu góor bi mooy ki nu fi jàppoon te mu doon def revue de une détournée yéenekaay bu mel ni l'observateur ak yeneen yéenekaay mu indi woon cay coppite di wax lu wuuteeg lanu xëy bind libération di fàttali ni weeru août 2022 lanu ko tegoon loxo tëj ko juróom benn weeri kaso lataa ko ci contrôle judiciaire naka noona mu jël gaal yi wutal jëmale bitim réew des ca yoon ba Walf Quotidien di ñu xamal ni ñu jëloon yoonu Espagne jaar ci gaal yi ba àgg ñoom ñépp daanu leen delloo si l'observateur dellu si ci mbirëb kañu ne góor jigéen la te nu lakkoon néewam ca Kaolack xamal ñu fi enquête bi tollu ne teg nañ ci loxo juróom ñaari ndaw fa yëfee jóge itam yéene kaay bi ne xam nanu ko ndax ka ne ca bopp ba ci njabootug diine gu mag gu nekk ca Kaolack la bokk fi mu ne nag dafa daw ca Gàmbi waaye Interpol a ngi ci ay tànkam yéene kaay bi it fësal na listub ñu bari ñu ñu teg loxo la tribune na ñu ngi ak benn ñaar ña ne ca ñoo daw kenn kaa nga Gàmbi kenn kaa nga Mali libération ne fukki nit ak ñett yu njort ne danoo takk ca yëf ya ñoo nekk ci loxol yoon wëlbatiku it xamal ñu ni coow suuf bu judd ca Sicap Liberté 2 mi ngi ci loxol yoon terrain ba libération ne na ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti mètre carré la tollu ndem si yàlla Serigne a Seye moo ko jëndoon ca atum 1995 ngir ay doomam moom góor gi mi ngi faatu atum 2009 waaye ci atum 2022 njabootam dañoo xëy rek gis ab waaye ñëw tàmbali ay liggéey ca boobaleb terrain ba mu ne sëriñ góora sëy moo ko jaay boobaleb terrain génne acte de vente bu ñu xaatim ñaar fukki fan ak juróom benn weeru novembre atum 2021 maanaam fukki at ak ñaar gannaaw ba kam ne moo signé yëf ya faatoo ab enquête gannaaw pëlent gu njaboot ga def wane na yëf yi tëgg wëndeel la yéene cabinet dossier baa ngi ci loxo procureur ci Sall booba jamono ci la soleil mu naan ndaw ñi ëllëgu réew mi ci seen loxo la ne xool leen liggéey yi ngeen mën a liggéey ci réew mi te ngeen toog fi moo gën di jël wu amut mucc le soleil nee na yi kàddu mi ngi ko yëkkati ba muy sumb liggéey zone économique spéciale intégrée bu jas booba jamono amadu baa ngay diggee lu ne ca mbuur buñ sukkandikoo ci laas ci critique ñu fekkati ko fa moom amadu baa muy fësal yaqiinam ci gagné élection présidentielle bi nu dëkmal ci premier tour yéenekaay kaay wiy laaj ndax amadou ba day gént wala waxi kuy campagne lay wax fekk tontu liy ñëw réew mi quotidien ma nga ñuy xamal ni Pape Matar Sarr ak Sadio maane bokk na nañu ci nominé yi ngir ballon d'or africain ñeel CAF Awards 2023 nee na Sénégal am na fa taxawaay bu mucc ayib te itam